ndax lépp julit si foofu lay déparé foofu lay commencé muy lan muy baatu seede yi baatu seede yi mooy ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah kuy liqaam moom ngay wax kuy noddu loolu lay wax kuy julli bay taaye bay accès si sëlmal ba balaa ngaa wax asalaamaaleykum di ngay wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ndax kooku nag mooy léppi àddina mooy léppi diine kañ lay am nag ay fan yu néew ki leen koy présenté mooy seen mbokk seen xarit seen am di jàmm imam Muniru Ñang fan lay amee fii si seen seen Hann kon yal na leen émission bi fekk si jàmm ngeen bàyyi ko xel yàlla fay leen yiw yàlla boole ñu jàmm ji jàmmi àddina jàmmi àllaaxira yal nañu ko yàlla defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa